il faut aller vers la renouvellement du du du du du, du parti les mêmes personnes yi ko nekkoon di ko di ko di ko diriger est-ce que ñooñu war nañ mën a continuer di ko diriger. loolu d'accord naa ci mhm. nga wax d'accord naa ci loolu dama koy lancer président de la République ci boppam. Mhm. gis nga balaa ma ñëw ci loolu. Arma Fall gis nga amul benn kenn fii ci Sénégal ku am parti te gëmoo sa président secrétaire général parti wala président parti PDS Abdoulaye Wade lañ gëm. tout à fait moo yore parti moo yore moo ba léegi voilà PS loolu moo tax mu tas dem si yàlla si mu demee moo moo xaaj ñaar PS. Mhm. Moustapha Niasse ba tey jii moo géré moo moo géré AFP. mais non je veux dire que ba léegi moo géré AFP laa bëgg a wax mhm. voilà. Mhm. tey ñuy jël pouvoir nii mais euh, Pastef jëlu pouvoir Diomaye président moo jël pouvoir. Pastef bi ñuy jël bi ñuy jël pouvoir boobu boobu existé wul. Diomaye président coalition boobu moo jël président actuellement ñoom problème boobu la ñu nar a am parce que amul parti bu jël pouvoir coalition ba jël pouvoir. parti bi nga xam ne moo ci gënoon fas bokkul woon ci coalition bi. d'accord nga ak man loolu. tout à fait. woon ci coalition bi. parce que dañ ko dissoudre. dañ ko dissoudre voilà ñun nag suñu parti laa wax. dama ne benn président la am mi ngi tudd président Macky Sall muy APR waxaguma ci bennoo APR laa président Macky Sall mooy président parti APR képp ku ko gëm di nga resté ci biir APR ñafe ak moom puisque mënoo ànd président boo xam nee naa la wax naa la ko léegi mu def 12 ans de pouvoir musul ñàkk élection loolu musul am ci benn parti nag ci benn coalition musul am coalition boo xam ne tëri na pendant douze ans tasul coalition boo xam ne def na douze douze ans def na ci ñaata élection mosu ci ñàkk benn mais tey ku ci génn da nga gorawul ku génn waxuma la coalition ku génn APR da nga gorawul nga am ceeg nga ñàkk ci am laa yemale parce que ànd boo boo wàcc sa non ñu génn avant élection yi am nañ ci am nañ ci droit parce que aussi bu newuñ parti bi comme ni nga wax léegi loolu moo koy wan démocratiquement lañu la ñuy doxalee suñu parti bu fekkee président dafa ne dafa bëgg def candidat am ñoo xam ne ñu ne ñoom bëgguñu candidat bi dem nañu seen seen seen seen seen bopp baax na loo ci gis zéro virgule zéro virgule la ñu am zéro virgule zéro virgule tey nee naa la coalition benn bokk yaakaar muy deuxième ci élection présidentielle 2024 yëpp a fay parti yëpp coalition yëpp a fay déggoo kenn te nag. damay dégg coalition bi la wala Amadou Ba la. non non coalition bi président Macky Sall laa wax. dama ne c'était déglu ma waaw ah. naa moom coalition bi loolu Amadou Ba. waaw wax effectivement président moo moo ñu tagal Amadou Ba moom perte wul de coalition bi yëpp perte. coalition bi ñoo perte. coalition bi ñoo perte. bëgg régler.